alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulilahi alladi lam yattaxis waladan walam yakun lahu sharikun fi lmulk walam yakun lahu waliyun min zul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigal ak turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi jëm ci sëriñ bi mu ci kaw suuf mu yàgg ci loolu te ànd ak yoon ba li nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa suñu borom mooy ko kattan ak wér yëpp mu mottali ko ndax moom kat bi mu agsee ba toog a jege taay sëriñ Tuubaa ku ne xam ne ne Serigne Touba ku ne ak lam la lam la liggéeyloo ci ak njabootam ni ma koy fàttalee waxtu waaye bari bi ñu toog ku ne xam ne ne ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko naanoo ba defoon fi xaalis bare bari ba liggéey bi sooy suñ borom yàlla def mu taxawal ko ba Serigne Saliou Mbacké ñëw motte liggéey bu njëkk ba ba ubbi daara yi alxuraan ji ak daara yi xam-xam ji mu nekk daara yi majaalis yu yaatu mu jiite ci sëriñ Moustapha Mbacke doomam teg ko ci loxol sëriñ Abdou Lahad Mbacke Chouaïb ak sëriñ Jili Mbacke mu Cheikh ba yàlla def ginnaawam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ñëw am yéene yi mottali ko ginnaaw bi yàlla def Cheikh Sidi Mokhtar ñëw moom itam am yéene àggale ko waaye ni ma ko waxee ku ci ne Serigne Touba defal na la ba yàlla def euh, la sa jamono nga def ci loo xam ne kenn du ko fàtte bi mu toogee jataay Serigne Touba bi jataay bi mu njëkkee daje ak yoonu murit te njabootu Serigne Touba gépp fekke ko. ba mu yëkkati ay kàddu mu wax kàddu yam wax ñëpp dégg ko teguñ ci bis bu si mu woote ab jataay bu gàtt boo xam ne dafa tànn lépp ci borom xam-xam yu ci dëkk bi ay ñi yëngutu ci wàllu daara yi wax ak ñoom ca jataay ba nag la waxoon sëriñ Ahmadou Badawi ibnu Cheikh Mamadou Fadil ne ko liggéey bi de ba ma ko xalaatee sama xel di mu ci kenn kudul waa daay raw du royaaxin ci sa njiit ngeen taxawu ko ndax yéen dafa leen caa fekkoon ngeen ni ci di ci yëngutu ak di ci liggéey yàlla def kon bu ma agsee amul benn xalaat bu weesu teg ko ci seen loxo ngeen doxal ko ba maame ko ni ma ko bëggee kon nag sëriñ Ahmad ñu ngi lay ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa euh, euh, liggéey bi bi ñu ko tàmbalee fii mu agsi li nga ci waroon def lépp ci taxawaay def nga ko ba dara manqué wu ci ndax ni nga ko waxee rek système bi ngeen doon defar ci wàllu njàngale bi waroon naa diir ay at waaye ci diir bu gàtt lañ ko def te loolu mooy lépp solo ci liggéey bi kon bu fekkee yàlla def na mu dem ba agsi fii sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen ñaanal ak mboolem ñu ngi koy seq liggéey bi yëpp bayu ci kenn di nuyu sëriñ maam Thiaw sa doom mi nga xam ne mooy saytu wàllu taxawaay yi ànd ko ba liggéey bi ak si di sant nag bala maa ñëw ci li ma sëriñ yóbbante mooy mboolem jabootu sëriñ Tuubaa gi fi nekk yëpp bayuñu kenn buñ tuddee kenn rek tudd na waaye itam buñ ci tuddee ñaan ndax binduma ko mën naa ma fàtte kon ñu ngi nuyu sëriñ Hamsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad di nuyu sëriñ Mouhamadou Lo Ngabou di nuyu sëriñ Cheikh Mbàkke ñu sëriñ Mahmoudou Jobbe mi nga xam ne moo fi teewal jabaru sëriñ Massamba di nuyu sëriñ Bachirou Mbàkke Abdoul Khoudous mu fi teewal njabootu maam Thierno Ibrahima borom Darou Mouhty di sëriñ seex na Mbacké mu sëriñ Cheikh Penda mi fi teewal njabootu Mamour Diar borom sàmm moom mi nga xam ne mars naa wax ne bi sëriñ Touba di sanc ci dëkk bi te daa réer ci biir dëkk bi ñu di ko wër taalibe jaaxle lool mu agsi dajale ñëpp ne leen ci leen fi dajale de jëkkut jëkkut ba ba ba ba ba ba dajal leen door a seet nu mu leen yore daa seet ba xam ni mu leen yor doo leen fa dajale sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Aliou Fall Mbawar bu ñu ko tuddee tudd nañ njabootu Cheikh Cheikh Ibrahima Fall waaye tudd nañ mboolem taalibe sëriñ Touba maa ngi nuyu bu baax sëriñ Moustapha Mbacke mu sëriñ Abdoul Akram moom sax daanaka mën na fee teewal sëriñ bi. ndax seen diggante ginnaaw bi mu demee ni demee ci yoon ak doomam sëriñ Koso Mbàkke mi nga xam ne ñoo ànd teewal fi sëriñ bi di nuyu itam di siyaare soxna May Mbàkke bintu sëriñ Abdul Ahad moom itam mu taxaw fi taxawaay bu rafet ndax yàlla def na bi Cheikh Mouhamadou Mountakha tàmbaleegul liggéey bii moo fi nekkoon di fi dundal barab bi waaye yàlla def yàlla def ci taxawaayam ba sëriñ bi tàmbalee liggéey bi mu sanc yeneen daara di ko siyaare di siyaare it soxna maam Marème Mbacke sëriñ soxna bi ak mboolem jabaru sëriñ Tuubaa bi di la fa nag liggéey bi nga xam ne sëriñ bi dénk na ko soxna Soda Xuma muy jàmbaar loolu la ko sëriñ bi wax rek man xam naa ci lu bari ndax liggéeyu Serigne Touba ba léegi ñuy wax julli géej gi Cheikh Mouhamadou Mountakha bokk na ci la mu wax mooy bu fekkonte ne l'islam nangu na jigéen jiite kon moo koy jiite kon du ko du leen tànnal lenn njëkk ngir pësté fam ak taxawaay buñ ko nuyoo nag ñu ngi nuyu sëriñam de sëriñ Abdoul Karim Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Farid di ko ñaanal mooy itam suñu borom dëgg la taxawaayam te yàggal ko fi mu yàgg loolu te ànd ak loolu di ko sant bu baax di ko gërëm di gërëm mboolem ñi nga xam ne sëriñ Ahmadu Badoy tudd na leen te sëriñ bi sant leen liggéey ci barab bi di ko tàmbalee ci bi nga xamee ne sëriñ bi wooteel na boppam taalibe sëriñ Tuubaa yëpp wusu ko mboolem kër sëriñ Tuubaa yi kër sëriñ Tuubaa nag bu ñu ko waxee ñëpp ci lañ dugg ndax kenn génnu ci buñ ne njabootu sëriñ Tuubaa kër yëpp ci tàbbi njabootam gi tàbbi nañ ci Daaru Muxti tàbbi na ci Daaru Salaam tàbbi na ci kër sëñ Masamba tàbbi na ci kër Mamour Dia tàbbi na ci ndax lenn la kon ñoom ñëpp ak mboolem seexi Sëriñ Tuubaa yi kenn ku ci ne ñu dajale seen ñaq ak seen alal tàbbal ko jëf ñi loolu nag Cheikh Mouhamadou Mountakha la way juróom bu Cheikh Saliou Mbacké daa wax rek dalee de sant bu baax ndax jox bi dafa jiitu naaj bi waaye ku fi agsi it xam ne sëriñ bi ba mu tàmbalee ni liggéey ba dëgg ni def na ci yitte def na ci taxawaay ndax li nga xam ne taalibe yi jox nañ ko teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxol Abdul Ahad Ka mi nga xam ne moo jiite liggéey bi sëriñ bi defal boppam lim ci ñàkk jege na juróom milliard ci lim ci defee kon rek te xam nga ne liggéey bi des na lu bare bari ëpp na ñeenti milliard di wéy kon loolu taalibe yi kon li ñuy jox sëñ bi laa yuñ ci waaye ku fi ñëwee itam xam ne sëñ bi tabale na ko kon nag ne ci ñëpp gën a góor góorlu gën cee def yitte gën cee def taxawaay di gërëm itam ñi nga xam ne dañoo ñëw ci sëriñ bi ni ko sëriñ Axma waxee seen bopp aw sas sëriñ bi jox leen ko te buñ ci tuddee taliya bi nga xam ne fii ñu toog nii bëtibaay yi ngeen seen yëpp ñoo koy defal ci njiitalu sëriñ Bay Sarr ñu koy teg ci loxoom mu àggale ko ci mboolem waa daayira bi yëpp di nuyu itam waa Touba ci kanam nga xam ne seen yitt ak seen taxawaay ak seen pasif biñ juddoo yàggut waaye ku ne xam na liñ fi jëf boobaak léegi ci fànn yu bokk kenn mënu ko lim ñoom itam seen bâtiment ba sori na lool sëriñ Cheikh Mbackeem Serigne Abdoul Hakim moom itam ku ne xam na ne liggéey bi mu fi jëf pasif la ko defee waaye. nee naa ko liggéeyub sëriñ Abdul Hakim la ci biir kër Cheikh Mouhamadou Bachir waaye ci biir kër sëriñ Touba waa marché Ocass ñoom itam ci koor bi lañu sëriñ bi yabaloon maag sëriñ Ahmad Badawi ñoo tegal leen xeer bi ñoom itam liggéey ba ku fa dem xam ne ma ngay sori bu baax a baax waa daayra waa daayra xisbu tarxiya yàlla def na bi ñu tàmbali liggéey bi sëriñ aatu sëriñ bi boolewuñu ñu ànd ñëw ba xool barab bi ba lu ëpp ñett ay gis ànd naa fekk sëriñ bi ak sëriñ Ahma ñëw seet si liggéey bi xool fi mu toll ñoom itam Cheikh Mahoul Mountakha biig bokk na ci baat bi ma wax nee na Hizbut moom soldaar yi suñu tubaab yi loolu doy na sëkk seede kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kàddu yi moom du yoosu sant ak ngërëm ndax liñ ci waroon wax ci kàddu yi soññee sëriñ Cheikh naa wax na ko sëriñ Ahmadou Badawi liñ ci waroon wax wax na ko ci lépp kon duñ guddalaat xanaa sant yàlla ak sant sëriñ tubaa ci tawféex jim ñu defal ba liggéey bi ñu fekk ko mu bokkoon ci naale sëriñ Touba yi mujj te sëriñ Bakk Bousso bindoon ko ci leetar bi kon nag ku yàlla defal tawféex ba nga bokk ci war ngaa sant yàlla bu baax a baax te xam ne taalibe yi sëriñ Touba moo leen faggul duñ yëg naqari jamono wali siwaa yentahi dayxu zaman kon nag la sëriñ bi waxoon ca ba muy woote jumaa njaareem ji rek damaa bëgg lépp loo xam ne soxlaate ngeen ko lu mel ni néegu yàlla bi wala lu ne demee damaa bëgg ngeen góorgóorlu ca seen kemtalaay kàttan ca la ngeen man ak la ngeen moom fu ca seen kàttan yem ngeen toog xaar fa say jaxlulah bada onsi yusra te wattandiku lépp ndimbal loo ne bu leen fajalee seen aajo daan leen xañ seen ngor xañ leen seen jom xañ leen si diine wax ju gudd la ila axiri waaye taalibe yi dañ sant yàlla bu baax a baax te xam ne Sëriñ Tuubaa lim ñu fàggul dara ëpp ko ndax la ci ëpp mooy fàggul nañu aj ëllëg àjjana ju ànd ak xisaab fàggul ñu itam wërsëgu ànd ko coono kon wax na ne ba nekkee ca géej gi dafa sonnoon lool ci di sàkkul taalibe yi xéewal mu bind wax ne a jannati addin tajri min taxtiha al anhaaru ma hijri nee na suñ borom wàcce xéewal yu bare bare ba mujj taalibe yi topp ko ba ak mbiwatu tabbi leen sëriñ bi nee na ma jaaxle ci lool ma laaj sama borom ne lii lu ko waral mu xamal ma ne yaa leen ko fàgguloon ndax yaa bindoo ne addani nee na suñ borom xamal ko ne ko sëriñ bi na jaaxle nee na ma ne ko nu may def mu ne ko soppi noon gi ak làmm mu binaat addali jannaati adnin tajri mu ne ko xéewali dana ñoo tudd ak mbew dootu leen tàbbite kon nañ xam ne sëriñ Tuubaa fàggu doon lépp moo tax am na ku bokkul ci yoon wi mas naa gis benn taalibe ne ko azhabtum tayibaatikum fi xayaatikum dunya Serigne Touba ba wax ji agsee ci moom ba Cheikh Issa Dieng laaj ko ne ko Mbàkke ñun de dañoo xaw a jaaxle ndax lislaam li mu wax ci ñàkku gor wooy liggéeyal ñàkku gor kooy liggéeyloo te fayoo ko li ci lislaam wax dafa dis dañ gis taalibe yi topp suñ ginnaaw li ñuy liggéeyal ngir yàlla Serigne Touba ko Issa sama mbir mii de la may suñ sama sama borom xam mooy haza ataauna fam nun awam sik bi xëyri xisaab bi kon nag bale ñoo jeexal rek ñu fàttali ki nga xam ne moom la sëriñ bi njëkk santub liggéey ci barab bii muy sëriñ am di xarit Fall yàlla def itam man mii la yónni woon ci moom mooy miir bi ngeen gis mu def ko defe ko yéene ak positif te ku ne xam na ne bi nga koy toj sax ñu bari ñëwoon nañ ci siñ bi ne ko miir bi jàpp naa ne jëru toj ndax mën naa am téeméeri at sëriñ bi neen daal suñu am di moom ma ko jox liggéey di ko sàkkal fu mu tàmbalee fu mu yem moom na ko ne xam ne ne maamam ji tedd jë bu del siwaatoon du soppi jotaay ma loolu doon sëkk asalaamaaleykum wa